bisu tey bi dañu nekk ci weer woo xamante ni weer bu màgg la muy shahru ramadan muy weer woo xamante ni weeru dimbalante la ñu nekk nag ci fukki fan yu mujj yi aidons les enfants handicap indi woon ay xéewal yu mel naka ganaar ak ay légumes yu mel naka pomme de terre wala soble moom lañ fi indi woon xool ñi nga xamante ni seeni waajur yi euh, dañu jur ay doomu handicapé yu nekk ay gone ñu bëgg leen a jàppale dimbale leen ngir marché xataayu marché ba ak jafe-jafe yi ñu mën leen ko wàcceel ba nga xamante ni kuñ ci jox lii tey amaana dootoo jaar marché ndax di nga mën a toppatoo xale bi ndax ñun ni ñuy liggéeyee mooy dañuy xool lépp loo xamante ni buñ ko defee xale bi nga xamante ni day dund laago yaay mën a toog ci wetam mën koo wéttali dañ koy xalaat di ko def te lii tey bu amul yaay ji mooy dem marché dem nduggi te bu yaay ji demee marché nduggi dana fa bàyyi xale ba diggante boobu nag xale bi di ñàkk yaayam ñun diggante yooyu la ñuy xool jéem koo fat ci anam bi gën a rafet te lii aussi suñu borom da koo digle ndax suñu borom moo wax ni wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ithmi wala udwan suñu borom daf ñu wax ne nañ dimbalante financièrement mentalement physiquement te bu ñu dimbalante ci dara luy joxe bàkkaar te bu ñu noonante ndigal suñu borom boobu nag moom la aidons les enfants handicap ak seeni partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ñu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew jàpp ci liggéey bi ba lii rafet tey ba nga xamante ni tey am na ñoo xamante ni bu ñu fi jógee dinañ mën a yóbbaale loo xamante ni bu subaa dinañ mën dinañ si mën a togg añu korité te duñu dem marché loolu mooy taxawaayu aidons les enfants handicap tey ñu woote ci ay quartiers yu xaw a takku woo leen fii ngir jox leen ndogu yi nga xamante ni jox nañ ko pour suba korité ñu mën see togg añ incha allah Euh, non yàgg nañ koy def yàgg nañ koy def ànd yow aussi mu nekk loo xamante ni lu rafet la euh, ñu la siy sant di la gërëm bu baax parce que sa liggéey rafet na mu nekk liggéey boo xamante ni aussi dañu bëgg mu gën a yaatu parce que aidons les enfants handicap euh, ni muy liggéey dafa am solo parce que xale yi laago yi dañ leen war a jàppale xale yi laago yi dafa mel na état da leen a fàtte. parce que souvent bu ñuy wax même les personnes en situation de handicap bu ñuy wax sax la loi d'orientation sociale beeg yooyu yëpp duñ duñu sóoraale xale bi nga xamante ni mi ngi dund laago ñun nag dañu gis ni dañu def benn taxaw seetlu gis ni association yu bëree bëri bëri bëri association yi handicapé yu mag yi rek la ñuy jël en charge ñun nag ñu xalaat ni sama soxna sax moo ko xalaat parce que man handicapé yu mag yi laa jiite sama soxna moo ko xalaat ci liggéeyam ni ma daal dama xalaatoon jàppale handicapé yi nga xamante ni ay xale lañu ma ne ko loolu de boo ko tàmbalee danaa la si jàppale yàlla dogal ñu siy liggéey ba suñu borom def lii tey tawféex euh, macha allah mu nekk lu am solo fépp fu xale nekk nag feebar boo ñu ko waxee dinañ la jël en charge faj la yóbbu la hôpital faj la ba nga tane nu delloowaat la sa kër. waaw fi ñu toon tey jël nañu 23 personnes yoo xamante ni jàppale nañ leen ci wàllum duggum korité 5 euh, kilos de soble 3 kilo de pomme de terre ak ñaari ganaar. yoo xamante ni dañ la koy jox nga yóbbu sa kër korite ji tànneef bi dañuy xool xale yi nga xamante ni ay handicapé lañ ñu xool seen yaay yi ñu woo leen indi leen jox leen ko pour seen yaay yi mën a mën a mën a toog. Hmm. waaw kàddu yi ñuy yëkkati rek di ko jëmale si autorité yi ak kilifa diine yi nekk ci biir dëkk bi aussi ñun ñoo ngi liggéey dañuy liggéeyal yàlla kuy liggéeyal yàlla nag day liggéey rek continuer. duñu xool dara waaye nag dana am solo ñu woote ci lu mel nii parce que diina nasiha diina laabire la lii ñuy def nii tey yaakaar naa ni am na ñoo xam bu buñ ñëwoon gis ni ñu mel ni ñoo koy def sax mën nañ ko ñàkk foog ci ñun waaye ñoo ngi ciy liggéey te yàgg nañ ci lool loolu nag dañ ciy woo képp koo xamante ni autorité nga te nekk ci dëkk bi di ci woo autorité yi nekk Sénégal yëpp en même temps di si woo sëriñ si nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ñu gën a jàpp ci liggéey bi ndax bi amul liggéey bu gën a taaru amul liggéey bu ko gën a taaru jox la ñaari ganaar 5 kilos de soble 3 kilos de pomme de terre ak laaj ak euh, euh, nu ngi koy waxeeti vinaigre yooyu yëpp mi ngi ci biir maanaam danoo jël lépp lu jigéen di soxla bay dem marché dugal nañ ko ci biir saako bi jox la ko su ko defee yow dootoo dem marché loolu nag li ñu si jublu mooy xale handicapé bi nga xamante ni yow yaa ko jur moo la may loolu kon ku yàlla bind rek am na njëriñ su ko defee nag ñu gënaat fonkaat xale yi gën leen a toppatoo di leen toppatoo seen yaram ba ñu gën a set gën a civilisé di leen jàngal aussi même foofu aussi bëggoon naa fa lancer benn appel muy daara joo xamante ni dañ fay dugal handicapé yi xale yi di leen jàngal loolu aussi ñun amaguñu doole boobu mais ñoo ngi koy xalaat ñoo ngi koy mbébét bu ñu sañoon dinañ am benn terrain boo xam dañuy am ay partenaires yu ko tabax ñu yóbbu fa xale yi di leen jàngal seen añ seen reer seen ndékki mu leen di fekk foofu ñu wut ay jàngalekat yoo xamante ni dinañ leen tette parce que gis nañ fi xale yoo xamante ni léegi fa ñu dëkk amul daara seen papa bëgg na leen jàng. maanaam ci wàllum éducation ci wàllum éducation gis nañ ni handicapé yi nekk fii yëpp xale yi ñu si bëri duñ jàng loolu nag moo tax aidons les enfants des des personnes handicapées taxawal benn xalaat boo xamante ni bu ñu sañoon ñu am ñu si jàppale. am ay bailleurs de fonds yoo xamante ni maanaam mën nañ am terrain am ñu jàppale ba ñu tabax ka ñu yóbbu fa xale yi handicapé yi ñu jàng jàng alquran jàng xam-xam jàng nasaraan. gis naa fi sànq rek maa ngi fiy posé question benn waay boo xam dafa indi doomam euh, fam fa mu nekk amul daara bëgg na ko jàngal mais amul fu mu ko yóbbu kon kooku am na yéene ci xolam mais amul fu mu yóbbu doomam parce que type d'handicap bi xale bi am permettre ko muy dox naan day jàngi feneen. donc ñun bu ñu amee nag daara joo xam ñu ñoo koy moomal suñu bopp jël xale yi en seen añ seen reer seen ndékki ñu ñu leen di toppatoo yaakaar naa dana gën a yomb loolu nag ñoo ngi ciy woo autorités yi di ci woo kilifa diine yi kilifa aada yëpp ndax liggéey la boo xamante ni suñu borom moo ko digle te ñun foofu lañ teg suñu tànk. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp man la Zeynab Ndiaye bi jiite aidons les enfants handicap. waaw jëf ji mën naa cee dellu si dañu waaj rek ngir jàppale ñi nga xamante ne yaayu handicapé lañ. jàppale leen xool ci ñi nga xamante ne ñoo ci xaw néew doole lool ñu dimbali leen ci ak ndugg ak ginaar ak yoon waa fonds yi nag dañu nekk ñun ci suñ benn groupe boo xamante ne mu ngi tudd aidons les enfants handicap ci la ñuy waxtaan bu ñu waxtaanee dañuy def ket bu defee ket ba pare ci lañ jënd ginaar yi pomme de terre yi vinaigre yi ak laaj ak yëpp ngir jàppale leen. waa li tax rawatina handicapé yi ndax handicapé daanaka boo dee seet. seen waajur yi ñi ciy néew doole dafay bëri torop moo tax ñun ñu xalaat lool. ñun nag li ñu leen di wax saasu ne ñu téye xale bi jàppale leen eh, bu baax a baax. waa jëf yi nag bëri na lool macha allah ndax ñu ngi ci xale bu feebar ñu ngi ci ravitaillement ba fan yi paase rek ci biir koor gi def nañ ci ay ravitaillement jàppale ay nit. projet yi bëri na kan ni ko Cheikh Moustapha waxee bëgg nañ daara buñ dugal xale yi ndax xale yi dañ war a jàng am na ci ñoo xam ne handicap nañ mais mën nañu wax. loolu it ñu ngi ciy woo ñëpp ñu jàppalañ te yàlla tax dafa sooxe torop ba pare dañ leen a fàtte dañu fàtte xale yi torop mhm. war nañ leen a gestu bu baax ñu ngi ci woo ñëpp nag ñu ngi ci woo ñëpp ñu gestu xale yi parce que ci lañ bokk mhm. li may jeexale xanaa sant ñëpp rek euh, sant sama borom kër Cheikh Moustapha parce que jàppale na bu baax ci liggéey mhm. rafet la jëf ji xam ne moom lañ def ñoom say bu ñoom ñi ndax maanaam comme ni Moustapha wax rek moom laay dëggal ci xale yi man sama doom yi dafa feebaroon lii judduwaale wu ko da koo dab danaan jàng sëy na bu mi ñu bokk mbootaay mu gëñ maa gis lool ci mbootaay gi mu laajte ma ñu ne ko doom dafa feebar mu dëgg tànkam ñëw gis ko mu ne man dafa ama ci lu mel nii laa yëngu waaye mosuma woon a xam ne sa doom gi nii la mel damaa dégg ñu ne dafa feebar waaye xamuma ne bi feebar ko téye biñ ko jubgee bi mu waxee lool tamit jël nañ ko yóbbu ko Dakar ñàkk nañ ci nekk lu man ñetti weer ba ñeent yoo xam si ne ñoom ñoo ko jël en charge di ci def seen alal di def seen lépp waaw luñ ci mën a def daal lu ñu nekk def nañ ko ci wax dëgg yàlla taxawaan nañ ci taxawaay bu mat sëkk sëkk ba mën naa ne ak taneem foofu la ko jëlee Ndakaaru la ko jëlee wax dëgg waaw comme ni ñu def remet lu rafet la ndax nit ñi soxla nañ ko ndax ndimbal la doomu aadama yi ndax nit ki bu fekkee ne yow yor nga malaat am nga yoo xam si ni bi ne doo ko mën a dem lijjanti ji ko ñoom suñ ko lijjantee ba jox la ko rek ak kent lañ ci war a def waaw duñ def lu may daal di leen sant di leen ñaanal lii nga xam ne daal moom la ñuy def te yàlla rek tax yal na leen yàlla ak Serigne Touba lépp lu ñu def rek bu demee ne ñu man lu ko ëpp. ah soxna Seyna bu ñu nekk fi moo sëñ Moustapha di def lu baax di jàppale nga xam ne ñooy handicapé yi ndax handicapé yi moom ku mënut xamoo foo jëm. moom boo gisee ku la jàpp rek danga koy sant bu baax ndax sëñ Moustapha moom mi borom këram mi ngi jàppale xale yi wax dëgg yàlla te jàppale mag ñi barki démb rek lañ fi ñëwoon mu jox ñu tey jii mu woowaat ñu mook soxnaam ndax loolu lépp jàppale la dëgg yàlla dañ koy sant nag di ko gërëm di ko ñaanal waaw nit ñi soxla nañ kon ñëpp ay jaboot lañ te ko gis ku la jox soble pomme de terre ak ginaar sa war a dem dangay sant yàlla ndax ñu ñëpp jaboot lañ te loolu rek la jaboot war a kiyalug njabootam wax dëgg yàlla wax dëgg sant bu baax xanaa di ñaanal soxna Seydou bu rek yàlla na dund ba suñu borom yokk ko njaboot gi yor ko si barke Seydina Mohamed li muy def nag si jullit yi du ko def si handicapé yu ndaw day ñaan yàlla na ko yàlla fay si njabootam si barke Seydina Mohamed. xanaa rafetlu ko bu baax te sant soxna say bu baax tamit ndax ku baax la am na yëg tamit ci xale yi man de wax dëgg yàlla jàppale na ma ndax kii sama doom la. man naa bi ma ko ëmbee ba am ñetti weer rek ci dama papaam abandonné woon lijjanteetuma mu ni mu ko amee mu amee dama dañ maa opéré woon mu feebar nag am feebar boo xamante ni ci xol bi la nekk xam ne ñaari at nii mii mënul raam mënul dox soxna bu jàpp si bu baax bi ma njëkkee seet si valise la duy indil ma ay yére sama xol sedd bari barki dem ba àllarba bi passé la mujj sama kër indi ma ay couche lépp lu mu soxla mu ciy taxaw ma di ko sant bu baax a baax di ko wax kontaan na ñu ngi koy ñaanal yàlla na dund ba njaboot gi yóbbu ko màkka li muy def suñ borom rek a tax ah. kenn taxul mu eh. ñëwee sa kër sax du bëgg nga wax ko du bëgg nga sant ko sax day ñëw rek dem maa ngi koy baax moog sëriñam suñ borom may leen gudd fan ak wér. Hmm. sant suñu waajur sant sa Thiam mi ak soxnaam wax dëgg yàlla li moom rafet na trop waaw ah, man démb laa mu yàgg rek mu na ma yaay na ma papa ko mu ne ma bu na nga ñëw sama kër. dafa am ay benn yi jox foofu pour jàppale kii handicapé yi ma ne ko ah ma ne ko ma ko xam ne bu soobee yàlla dinaa ñëw si kàttanu yàlla di ko rafetlu trop moom lii moom macha du benn du ñaar du ñett wax dëgg yàlla moom jàppale na xale yi jàppale borom kër yi di sant yàlla rek di ko sant moom bu baax waaw waaw assistant boobu di ko ñaan mu jëm kanam rek waaw di ko ñaan bu baax mu jëm kanam di ñaan li nekk si kanam rek. yàlla na ko yàlla def baax mu wees